àndandoo dañ koy xeex ndax jàpp ko avantage bi. ñaari bëreekat gis nga gis nga gis nga yaa xool loolu day bëgg na ko man jàpp na la de dina la war de dina la war de dina la caxabal de la caxabal de laa ilaaha illallah na ko bañ na da lay dalay yëkkati dalay yëkkati eh caatu daanu nga caatu montagne yaa daanu caatu montagne daanu nga bu yàgg daanu nga yàgg na caatu montagne daan nañu la away yaa daanu de caatu montagne yaa daanu

safara sa combat bi mitti na de safara takka góor yaa kayta kara safara nga boo xeexee dangay ngay wàcc Lamine oh laa ilaha illallah takk na ko de waaye bañ na daga kay takraada fa njool loolu moo ko sonal ngay sax protestant bi Keita Kara waroo yàbbi protestant bi loolu si la bokku de koy sax waaye daa sonn ah moo lekk avance de dina ko daan dina ko daan war na ko ndombo bëreel Keita Kara daanu nga daanu nga de Keita Kara Keita Kara daanu nga de ay waay xool Keita Kara ba bi oo jaaxaan na Keita Kara jaaxaan na daggale daan nañ la de dafa mbër borom PA <laughs> Tafa nga ne. ñu ngi ziar de Babacar ngay am foofu. dafa mbërë ngi. Babacar ngay am foofu borom. borom unité yi. borom 1 26. rakku Modou xarañ. waa dëgg du neex. ak Papa Sob. l'enfant chéri des Parcelles Assainies. roi des arènes. l'homme qui mérite son nom. le choix du peuple. loolu biti la fanaan. waa mais tey da ngaa dikk beneen dikk bu bees. Eh, lu leer moo tax ñu ñëw toog xam nga def tekk ak dal. waaw parce que tey ndam rek lañ soxla incha allah. ma gis la 15 heures fii ci Blaise Diagne bi ngay war stade bi. leer waaw xam rek tey moom laa ma ñu ko soxla. teel lu ko waral. lu mu laaj la lu mu laaj la moo tax ñu teel a ñëw. géej way waaw loolu du yomb rang muy gaaw la rang muy gën a gaaw. day gën a gaaw. gën a gën a gaaw. waaw ah, léegi léegi. Eh, kan toj na Grand Théâtre Lamine. loolu kañ la. Grand Théâtre la fanaan big kañ la toj na fa. man de yëguma ci dara. lay lay waaye Lamine del yëg foofu neexoon na trop. cuqoon ba passé cuq. cuq naam cuqul. cuq na kaay. Babacar. commentaire ak combat balaa gars di mer am na ñu gaaw a mer. ñu ngi leen di jégalu. am na ñu gaaw a mer de. déet mer baaxul combat bi daa xaw a yàgg. te xam nga combat su yàggee. des fois day métti ci wax ji. moo tax faw ñuy xaw a génn tuuti. mais tey da ngaa sañse. gën a sañse. non gisoo sa bopp. ay naaj nga maye. non xoolal li nga def tey séeréer nag waay li nga def ci maro. amel am ñaareel nga bëgg. waaw non ñaareel man ta ñàkk. kenn pël wóoratul de. pël moom nopp na ma lool. danaa bëgg. ay man rek la bëgg. yow rek la loow day sagu. pël xam naa ne bu ma ko takkoon dina am lu ko gënal. ah. su ma ko takkoon dina baax ci moom. eh yëkkati kot kot yaay daanu ay waay. seng gi daanu nga. seng gi daanu nga. seng gi li nga def. seng gi yaa daan sa bopp. hey xool seng gi ay waay seng gi waaru na seng gi daggewul tey oh seng gi ñawul jàpp na ndigg la seng gi Alioune Seye bëgg naa la Babacar siyaar naa la fay naa la waa yëmbal benn baraag ak tournal baak buun ak ñoom seen ñëpp a ngi ci stade bi waaw yaa ngi toog ne tekk bés bi moo ko laaj day tekk la laaj waaw maanaam kon dafa mbër tekk koy daan wala non demul noonu sax xam nga dañ daan ñëw di dañ suñu bopp di def lu ne di def affaire xale waaw mais léegi nag léegi am yenn yoo xam ne waratuñ daal. moom na laaj naa ko sànq na rang muy gaaw nee na luy gaaw lay doon lii. waaw rang mu naan kang mu naan kang kang waaw moo tax nag ci kanam yàggatu waaw lépp dina leer. kon ñu yónni yàgg. yow daal li ma lay daal mooy. invité naa la suba. waaw. seen kër de bari na bañe. woo ñëwee ma toggal ay ginaar. ñëw ay ginaar yu neex. ma suba di nga ñëw wala doo ñëw. suba ah ku daan ma seeti la de. kon ci kattanu yàlla kon jàppal ni mën ngay seeti. incha allahu rabi incha allahu rabi waaw kontaan ci yow tamit. Alioune Seye kon maar préparé wul. tas say bañ ay ginaar la wax. xaw ma nag kuy daan. looloo ma desee leer. waaye waa Dakar jël écouteurs yi jàmbur yi Serigne sa élément bi doo fil. Sam borom Caaroy. waaw kenn ngi noonu maa ngi lay ziar sëñ Babacar. ci loo ne. maa ngi koom bu baax sëñ Babacar maa ngi ci liggéey bi. Sam journée bi kañ la première journée bi. waaw incha allah am nañ ci yaakaar mois de mars wala avril incha allah am nañ ci yaakaar Coly Faye daal am na adversaire. waaw Koulibaly 2 am na adversaire incha kan la kan mooy adversaire am na adversaire non yow moom dinaa la ko dee yàggul dara ñaari far ma delloo ko <laughs> jaajëf. Fallou Ndiaye. borom Kewel. info <laughs> wala borom garage waa gis nga borom garage bi waaw. mais naka na ci waaye ne ci kawam rek yaa ma. yaa ubbi woon de deuxième journée bi kañ la. waaw non incha allah rabi le janvier à la face ba fii Iba Mar fii Iba Mar le 11 janvier bu neexee yàlla muy lambu ju am solo di combat bu neex combat amateur tamit di woo amateur yëpp di wax ne la 11 comme na woon fa woon rek incha allah. booy ñëw bi yoon jàllaa bi ngay sol. waaw non bi indiwaat am naa beneen bu ñu la 11 xam nga ne le 12 janvier euh, drapeau Matar Bala 5 million fii jaaree Iba Mar Diop ñu war fee dajee isaat bi muy combat bu am solo di woo ñëpp rek kontaan si yow. di leen wax gisagul leen ci. nga ne di leen wax leen ci da da patron bi waxoon na rek Fallou Fallou suuna yi moo teglantoo dama laa laajoon programme te joxo waaye nag le 22 moom waa jox ma jox ma programme bi dee leen ko jox yónnee ma ko jeex na bu subaa ma def ci dara ma jeex na mu benn problème d'accord presse si soxo a le sportif sant yàlla bu baax yow it gisagul na ren de pare naa de am nañu jot jël avance combat bu ndaw incha allah fan yii rek dinañ ko finaliser mais yu ñu ngi si kawam. waaw mais Bousse. mais Babacar moo na nii. waaw Bousse ci loone namm la rek. mais maa la gën a namm. yow borom baax nga yow koo namm rek namm na la. doomu ndeyu Papa Diouf. kese. ak Marcel Diagne. kese. ak Balla Gaye jeex na tàkk. bu ci doon leneen de. ma yem foofu. na yem foofu ñi ci des ay àndandoo la ñu yooyu noonu rek. ak presse. àndandoo la presse àndandoo. mais tey loolu loolu seet sax tey. mais damaa ne moon làmb nag lii gëj na est-ce que du léegi trois ans yi nii ñëw ma si làmb yàgg na quoi parce que saa yu may ñëw rek day tombé làmb tëj xam nga ay période màggal yooyu laay ñëw mais lii dafa nice nguur gi war nañoo gën a jàppale làmb quoi président Macky Sall ku baax la ku gore la na ñu jàppale làmb indi sponsor yu ñëw jàppale làmb parce que xale xale yi bëgg dafa bari te làmb lañ lañ yaakaar waaw di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di wax Babacar Leewtoo kenn du yow si moom kenn du buuse kenn du yow. maa raw. noo gisee làmb ji tey. neex na sant yàlla yàlla na ko jig sant bu wér alhamdulilah. dëgg si naa la. fii la ëppee. borom la diis. maa wax lii. dégg naa da ngaa bàyyi làmb ji Lamine ma ko wax de. déet loolu waxi Lamine la. Lamine ku la wax loolu. daa bàyyi bu te mooy promoteur bi ma solo perte ci làmb ma sa perte. làmbam lay fees dell bay tuuru. père mariage bi tax. xam nga boo jëmee ci yoon. par exemple kenn mënut a déparé fii kenn mun a déparé oto tu fii ba Touba. accéléré rek léeg-léeg nga teggi sa tànk bàyyi oto bu mu nooyee tuuti noonu la demee mais yàgg yàgg da ngay accéléré waat sinon doo àgg mënuñu koo bàyyi ci ñun la bokk waaye nag. promoteur de spectacle lañ yemuñu ci làmb parce que Kandji production lañ wax une structure de production et de promotion warul yem ci benn spectacle kese. waaye yaa wax dëgg. war dem sax man produire match nawetaan def ko parce que c'est dans le de production. Kandji production la ñu wax. jeex na loolu nag au vrai sens du mot. gra grand théâtre bu ñëwee door a wax ci làmb ak combat boo xam nag buñ ñu ko waxee. mais man mais man que xam nga ne boo paree ci Sidi Diop di mën di Wally Seck a ñàkk xam wax di maanaam du ay grand théâtre du ay ko ñoo ñaar ñu bokk ndey ak baay lañ parce que li ñu boole c'est plus profond que ay grand théâtre kooku maa moom sam ak dimanche waaye bis du ci dox Sidi di sama rakk moom tamit xam nga bu ndab yaatoo ku ne man cee yor sa loxo yàlla na gën a yaatoo xoolal oh, xool mbër bi xool mbër

Babacar noo gisee làmb ji tey. ah doy na waar de lii moom man rafetlu wu ko quoi. ñoo seen yi la daa ni wala waa parcelle la. Babacar lamb dafa baaxoo lii. ah nag mais bu ëpp maa ah, kay nag gone gi dëkk parcelle warul woon du yoon. waaw loolu la maar wax. affaire yi daa war a rafet. lamb ji daa war a rafet. mbër day yem ci cumbukaayam. bien sûr. Pape Abdou Fall a ngi arrangé. mais vous allez vous allez vous allez nous montrer ce qui ce qui n'ont pas accompagné. bien on va les doxal. on va les on va les mettre tous derrière après on va les. xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii Papis. Papis Papis maa ngi lay bëgg. lay fay. mais lan la lu waral tension bi. ñëw ba si bi jël fi rakku seexu naa bi te deful dara bi gars yi di coow sax mi ngi taxaw fii ñëw dóor ko maas ko yóbbu ko am na ñoo rafetul quoi. waaw ndeysaan Papis Lamine mi looloo ko metti gars yi yàgg Pape Abdou Fall ngi arrangé moom Pape Abdou ngi arrangé jumtukaay bi yëngu na. Babacar tey da ngaa ci complètement non parce que lamb dafa mérité wul yenn comportement yi loolu moo ma tax a wàcc lii bu ñu ko continuer pro sponsor dootul am envie dugal xaalisam ci lamb mais John lan nga ko non xaw ma ko de yàlla rek a xam gis naa ne daal ñiy sol kii kii t-shirt yi dugg nañu ci biir di attaqué beneen camp bi te loolu rafetul day yàq làmb gis naa même ñu lay sotti sax ndox. da yaa ngi arrangé loolu amul problème loolu amul problème non dañu doon sotti ndox mu dal ma amul benn problème jaajëf. xoolal xoolal la tijjee xoolal xoolal lii xoolal lii xoolal xoolal xoolal lii waaw lii nag du ànd ak police yi di wax lii nag mënut a ñàkk ànd ak wax nag faaw police yi di wax nag lii lii rafetul waay. ah lii daa rafetul lii sabot àll Balla Diop e yàgg amateur bu seen lamb ba tey ñaari mbër yi war a bëre seen kaay na fi di histoire dugg ci biir géew bi jaxase lamb ji combat bi war a départ coow di am jaayante mën na fi am mat amu fi rôle bi ñu war a joué mooy que ne mbër yi nga xam ne ñu ko def dañoo war a sanctionné dañoo dagg bien pour ñëw seen lamb mais si ñu xeex bu doon xeex rek ne ñoom suñuy kër ah wax de ma xew ci lamb ji tey di amateur yi dañu dagg seen billet bëgg jàmm ñi ànd ak mbëri nañuy wut jàmm promoteur bi jàmm la bëgg amateur yi jàmm la ñu bëgg yéen nag bu fi andee ay. Assane maa ngi lay. maa ngi siyaar Babacar. borom Baol TV. ci bu wér. tey lamb ji. waa lamb ji ni mu mel nii ah, ak coow. ñoo am mais coow li wóor na. waaw non mbëri. nañ yem ci dëkkaate bi daa xaw a. am loo xam ne maanaam est-ce maanaam mënut a arrêté lamb parce que bu ñu gaañee benn mbër bu war a bëree grand combat loolu est-ce que. waaw na jël ay responsabilités rek mbër yi ay ak ñoom ñoo nekk na jël ay responsabilités wax ak ñi mu war a waxal. ku mel ni tey sa lamb macha allah comme niñ ko xamee rek ca laaw laaw la cat fees na. waaw macha sant yàlla gërëm amateurs yi sant Sénégal sant presse bi ci jàpp yëpp. lii la nañu ànd di liggéey rek Sénégal jëm kanam bu bii paree rek ma jox leen bu ko dàq. bu ko dàq. général Malika fils de Balla. loolu dana neexati lii. moo dàq lii. kaala rek yow. mooy kaala gën a mënoo ay si kaala gi Assane gën a gàtt de. baax na bu ma gàttee jëm. boo yëmbal bëgg naa. naa la. ana waa yëmbal. waa yëmbal ñoo ngi fi. keroog mel ni bëri nga bu métti yàlla may la ndam. waaw noonu la waroon demee parce que xam nga ne Xeelu Ngor champion la xam naa ne combat bi doonu woon combat bu yomb bi mu koy jël tamit xam naa ne yombul waaw xam naa ne. yombul moom defet bi waaw xam nga rek li ñuy wax nee nañ ku daanu ñànki te laamu ji dafa xam naa pression bi day toll noonu ci moom nax ñu tuddee drapeau bi seen nijaay ak mafia bi nekk ci laamu ji yëpp yëpp yëpp yëpp mu ñaax drapeau bi. mais wu action action wër na leen moom da daal bu njëkk bi ah nu mu demee daanu woo. ma ne action boobu laa la wax man buñ ma joxul jël moom kenn du ko jox jël waaw parce que man dama ko tuur dama ko jàllale sama zone laa teg te kiis mooy jël zone bi jël zone bi day 4 AP ngay teg ci zone bi loolooy jël waaye ba tey man sama zone laa teg jaale jàllale ko. léegi koo bëgg a bëreel. waaw man champion yi nekk ci làmb ji rek. jël mbay bu gi na ma may sens. mbay diisul. diis na ak diisul loolu fii lañ koy xamee. déggoo ma ci géew bi ak boo yëmba nee naa ci géew bi léppay yomb yi. kontaan a bég. booy yëmbal bu mag ee. <laughs> ñoo fàtt Diomaye am na carte avertissement. toppal ma temps toppal loolu toppal loolu maar. saa bokkal day gañ a away saa bokkal gañ na ko waaw nu woy ma ma ba nu amee ay reporter muy ku mel ni yow vraiment am ay promoteur li desoon rek mooy ñu am sunu sunu télé bopp te Assane Ndiaye wane na ne vraiment lépp lu waa Bawol soxla mu taxaw ci parce que ñun itam fii mu tollu Assane ah ubbil nañu loo xamante ni tey képp ku wax rek booye boo wax nu jàmm parce que loolu wax rek léegi tontu bi mu ngi fi te wax est-ce que waxante war naa tax kër gi ubbeeku. déet ah, waaw baña baña baña waaw waaw loo nee ku leen wokk ngeen xuri nu kuy xelam di ca jaayu barke ba yaay bor moom yow mii sax loolu nu waay di wax na leer parce que loolu nu waay di wax ci sa sa sa kii boo ci Leewtoo boo di ko ñëwaat waa ñu tontu du booy ñibbi doo xam di nga xam fi ngay jaar waa lii lan la Tapha Mbeur yor bi muy tuus lii la yoroon mbay yi ki nee ngoongu dafa mbër ngay sotte ko Pape Abdou Fall ndax léegi waa CNC duñ ko jël Pape Abdou Fall waa CNC war nañ ko mën a jël Babacar ba baal xeer yi quoi baal baal maa gis li nga arrangé sànq fi ah déet non lamb ji ñun ñëpp ci lañ bokk na rafet rek parce que lamb moo ciy gagné rafet na geste bu noble la ndeysaan dafa mbër ngonguy sotte koo yàgg maar xool kii ñuy buux xoolal kii ñuy buux dañ ko ne trois personnes yu dugg moom daa bëgg lépp trois bu leen violé règle yooyu wóorul de maar génnal kaay sees bi ngay gis ci la Tapha Mbeur toogoon pour wan la ne làmb wàllug teen la léegi jóg na ci sees bi mu ngi ca géew ba gaa yaa ngi taxaw bala arbitre suuf la ñoom ñëpp ci biti la ñuy dem kenn du dugg ci biir mbër mi arbitre bi adversaire am maar lamb wàllu teen la mu ngi nii kaay fa la Alioune Sèye Junior toogoon léegi moom mu nga ca biir gaa yaa ngi taxaw lamb wàllu teen la olof fa ko wax ñii ñëpp ci biti la ñuy ne arbitre soufflé moo dafa mbër kese ci géew bi gis nga sées ba kenn nekkatu ci waaw loolu si kanam lay leer kaay xool Alioune Sèye Junior xool Alioune Sèye Junior Matar Ndiaye ma daan saba ak Madja Amadja bilaa yàgg maar. mbokk ndey moo koy jur. dëggantaan magam ak taxaw ak moom noonu. sol capuchon bi. loolu dërët la. Ndeysaan Amadia. Ndeysaan lamba ngi waaye dafa am bële ngeen ñu koy sotti butéel yi. yàgg maar nuyu naa waa Liberté 4. dëggantaan tey la. yëg naa tey da ngeen di final ak Colobane. waaw. maa ngi ñaan yàlla final bi commencé ci jàmm jeex ci jàmm. yàlla na ñu am ndam. que le wax man. dëggantaan ndax Babacar ñëpp koy bëgg. waaw ku ko yàlla jox nga la ku ñàkk muñ. yàlla am la violence laay wax. ci sport amu ci. mais Liberté 4 daal nuyu naa leen. dëkku yàgg maar xool na Tapha Mbeur. ñoom Kempes ak Kempes la dëkk. waaw waaw. Boos Boos Siin. Boos Siin. waaw naa la. waaye di seet Ibrahima Faye Boos borom Lutte TV. joyeux anniversaire bo waa ndeysaan bés bu dellu si moo ne happy birthday to you boys ku baax waaw borom baax la mu nga Canada tey bés maa lay souhaité loolu moom a njëkk a jox moo ko Lamine Aliou Faye Ngongu ñëw Aliou Faye Ngongu ànd ak Amaja Madja kaay maar kaay bàyyi sama maam wax nañoo moom de laa ilaaha illallaah dénk nañ ko ay kàddu loo ko wax loo bokk ak moom ndey baay yéen bokk waaw loo ko wax ah ne ko mu teey bañ a saax-saaxee combat am respecté adversaire boppam loolu laa ko wax na solo mu ndaw la yan njaq njaq la yan bu daw di ñëw dafa am ngi di wër géew bi waaye doomu PA ngi rakki moom yow Papa Sow di daje comme pulawu la dëgër de waaw waaw ak Maguette Seck waaw waaw booy ñang numéro 2 bu Guédiawaye mu mel ni kon Guédiawaye parcelle dekkeeti na tey Guédiawaye PA aywa Guédiawaye aywa Parcelles kuy yëpp yóbbu client kan moo yëpp Tapha ngi yanca toj na ndaala Tapha toj na ndaala de yee yanca jox nañ koy sondel ay maar ay sondel mu koy sam jox nañ ko beneen maar sondel baa ngi doo taali sondel moo ko taal sondeel bu ne tàkk na fi Babacar. ah bii de mu ngi ah, ah, fay. maanaam fay. day ndaamu ndaw la yan njaq. njaq la yan bu daw di ñëw. dafa am rek ngi di war géew bi. waaye di daje comme poulain wu Lac de Guiers 2 waaw waaw ak Maguette Seck waaw waaw Boy Niang numéro 2 bu Guédiawaye ñu mel ni kon Guédiawaye parcelle dekkeeti na tey Guédiawaye PA aywa Guédiawaye aywa parcelle kuy yëpp kan moo yëpp Tafa ngi yanca yanca toj na ndaala Tafa toj na ndaala de yee yanca jox nañ koy sondel ay maar ay sondel mu koy sam jox nañ ko beneen maar sondel baa ngi nii doo taali sondel doo ko taal sondel bu ne tàkk na fi Babacar ah bii de mu ngi nii kenn taalu waaw guddi guddi day fay maa dina fay fay lu leer nga wax de soo baa ngi ñëwaa waa ndeysaan combat ba ngongu yàgg maar nuyu naa ñëpp kuy suivre Leewtoo TV ziar naa la ñaanal naa la jàmm ndeysaan Alioune Seye senior à gauche dafa mbar à droite Dramé ngi ñoom day soufflé combat bi dafa fëgg na bopp ba waaye dafa na bopp ba naa ku may suivre ci Leewtoo TV eh. Alioune Seye Junior Tapha Mbeur abi soufflé na Parcelles Guédiawaye Masta yomb Parcelles Guédiawaye Alioune Seye à gauche Tapha Mbeur à droite Sakho famille nuyu naa leen di leen jaale waa Talla bu Balla Gaye Sakho famille way juróom ñu génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana Talla di doomu Ndar maa ngi lay nuyu ndeysaan Talla du mën a ñàkk ak Sakho famille maa ngi leen waaye calki du ma ko fàtte Awa Diop yow nuyu spécial laa lay nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu waa génération xarañ ñoom Modou Sarr waaye waa KMB tam nuyu naa leen ñoom Amina Ngingue waaw ak ñoom ki nga xam ne mooy Asi Diagne ca Mauritanie waaw xarañ moo ñu boole waaye ñaari mbër yaa ngay lewtoo de bilaay ñu ngay lewtoo fii ci Leewtoo TV oh eh, Alioune na ko Alioune Seye wàcc na Tapha Mbeur wàcc Alioune Seye Alioune gis ko Alioune Seye a ngi poussé ak moom Alioune Seye si ñoom moom Marou Guèye waay maa ngi Marou yembal ak parcelle maa eh Tapha Mbeur Alioune na ko dina ko daan eh na ko mu wàcc daan na ko da koy daan war na ko ndombo mu koy door war na ko. dina ko buddi eh rëcc na rëcc na lu xew lu xew lu xew Magdi eh daw dugg ci géew bi Magdi a dugg ci géew bi Magdi la Amadia Magdi la ma loolu yàgg Magdi la Magdi ah Amadia Amadia la moo ci géew bi moo daw dugg ci géew bi deret la deret la Amadia la waaw deret dara fort def na erreur bu def na ngeen di erreur mais Tapha Mbeur li mu amoon yomb na mais nag li ko que dinañ ko xàmmee dinañ que li mu sol la li mu sol la lu xew lu moom coow am na de xaw ma lu xew mbaram Géejawaay eh toppal ma loolu Aliou Seye lu arbitre bi bëgg a def lu arbitre bi bëgg a def mbaa daa bëgg a joxe ndam ah doy na waar de waa yeel caaf dañuy bëriwaat dañuy bëriwaat. mais normalement li mu amoon neex na trop Lamine li mu amoon neex na. Tapha Mbeur Tapha Mbeur li nga amoon neex na avertissement Dramé avertir na Alioune Sèye Senior waa Guédiawaye ak waa Yeumbeul seen mbër a ngi parcelle 1 ba 26 Grand Médine seen mbër a ngi Tapha Mbeur a bu weex ñaari ngemb yu weex waaye Alioune Sèye dafa toj talak vert waay nuyu naa ñuy suivre Leewtoo TV ndaysaan sama gaay yi laaw fan si club Babacar bi dégg naa leen de Cédric Marcelin Ndour yàlla fa saaxoor jigo David Luiz Papa laay du mën a ñàkk yéen ñëpp laa nuyu Alioune Seye dafa mbër dafa li def doon naa dégg olof naan yéen a ca day gëna a wóor ne Alioune Seye am talu dafa lu wóor daw na jëlaat tànk ba Alioune Seye dafa yomb Alioune Seye noonu nga demee mbaa baax na dafa am a tëru na ko de dafa am a tëru na ko de mu ngi ruq ba de mu ngay door de mu ngay door Alioune Seye ngay fayu de Alioune Seye ngay fayu de Alioune Seye ngay fayu de Alioune Seye mbaa du ko daan dafa am a di de. Alioune Seye Tapha Mbeur ñu ngay bëree ca ruq ba eh ngoobu ko Tapha Mbeur Alioune Seye ngoobu ko Alioune Seye Tapha Mbeur nañ ci géew ba laa ilaha illallah Alioune Seye Alioune Seye door Alioune Seye junior mbërum la dëgg ak mbërum Modou Xarañ Lo Modou Xarañ Lo happy birthday to borom anniversaire bi waaye boos Lutte TV waa happy boos yow tamit nuyu naa la Ibrahima Faye waaw waaw mu nga cere mu ngay doorante mu ngay doorante mbërëm géeja way mbërëm parcelle waaye lii neex na de lu xew xeex gaa yaa ngay xeex lu xew waaw lii lan la déet est-ce que ñoom la est-ce que journaliste la ah yor na caméra de. ah dafa fii yàlla Lamine caméra yi ay bëri. dañ cee war a lii des cee war a wax. dañ cee war a wax ay sàcc ak lu la nga fiy dégg léegi. keroog sàcc fi objectif bu jàmm. objectif bu jàpp objectif bu jàpp 300000. déet. laa ilaha illallah. bii combat bi combat du yomb de dafa am combat bi ah. dafa jaxasoo Lamine parce que xam nga doy na waar daal dafa doy fu neex waay awale fa mel ni tey jii li mu yaakaaroon ci lamb ji est-ce na ko gisagul loolu de Aliou Seye tey daa ñëw sampal ko jaaga coono ngi commencé feeñ yàgg maar yàgg coono ngi feeñ. waaw feeñ na ci côté Tapha Mbeur. yóbbal sa feeñ na ci moom Babacar. waaw ah, coono ngi feeñ de. parce que am na lu muy sëggee souffle lay génne. waaw ah, premier souffle feeñ. laaw na dafa ambar moytul ni ngay xeexee Aliou Seye sang ba tey mu ngi song say tànk mbaa bu la tubbee tibb bu baax dina sotti xeex bu soor ko de dama la ne ku magal seen seen licence wallaay wax nga dëgg loolu laa gëm de dafa mbar sa laaw yooyu noonu ngay xeexe baaxul de jiital pied droit bi jël gauche di ko sànni ca kanam mbaa bu ñu wàccee tëbb la ñu la wóor de dafa am mbër waa Italie waa Espagne waa France waaw waaw naa leen waaye bu leen ko fàtte bu leen ko jaawale 31 décembre ca commune Ndombol finalu nawetaan la maître Pape Sène lañ ko dëjee ASC moom mooy ASC renaissance de Sessène waa maître Pape Sène sama xarit sama mag kooku dañoo yàgg ma moom maa ngi koy nuyu monsieur le waaw faw ma koy nuyu bonsoir maître parce que politique daa baaxoo waaye mais respect maître ñaari mbër yaa nga ah mbër bu jógee ci defet combat am du yomb doy na waar Lamine Alioune Seye tibu na ko tibu na ko tibu na ko de tibu na ko de dina ko yëkkati de dina ko daan daan na ko laa ilaha illallah Alioune Seye daan na ko tibu na ko daan ko xool Tapha Mbeur xoolal Tapha Mbeur waaru na Tapha Mbeur waaru na Tapha Mbeur waaru na yàgg maar waxoon naa la ko noonu naa la tànkam bii na ko sóor jëli na ko ñetti yoon baaxul bi yoon da koo am lamb ji amul mat lamb ji dana am coow. xaw ma coow dina ci waaye bi jël da leer na naññ moom. leer na naññ waaw. bii daal leer ni man ni mi ji. li bàññi ay bàññi. li bàññi la ki sondalam. leer na nañ leer na naññ la mi nag fekk. lamb amul mag. dañoo war a bàyyi mag. bëre mag lii muy risque yi. <laughs> ah waxoon naa la ko de. bëre bu risque bu kon mbokk yi ñu doon ci Leewtoo TV lii moo amoon tey Iba Mar Diop Assane Ndiaye Baol moo andi woon tey drapeau Baol TV Alioune Seye Senior gàddu na ko dafa mbër nag ci lamb li ñu lay wax mooy lamb dee su ko foyee bu dee da nga bëgg def carrière ci lamb da ngay jël lamb au sérieux teg ko ci yoon parce que xale nga am nga mbooloo waa parcelle bëgg nañ la Alioune Seye Senior nag tey li nga andi entraîné nga teg nga bëre bi ci yoon woo nga ko ci xeex wëri nga ay tànkam ay yoon amoo ko bi nga ko amee jeexal nga combat bi kon yàgg maar Leewtoo TV la woon gis nga fii Mamadou Diouf Petersen ci kaw ba ci suuf Mamadou Diouf. jaaykatu yére marché seen magasin la yor xoolal maar noir mais xoolal lii wulli wulli ki xew ci jamono wulli borom aas VIP sopp aas borom kolobaan moo gën a baaxi dal ci addina bi aas VIP sopp moo fi jaar solal yàgg maar ak Modou Mané aas yokkal sa loxo daal yi daa rafet wulli ma ko jox Papa Ndiaye mais ana laat laat seen laat kaay borom or yi kii faw ma wane ko kii sama rakk la sama xarit la mooy jaay or yi mu lay laaj faw nga jox may or waaw du ma la ñàkk Babacar de mais naka naka yëngu yi waaw sant Serigne Touba bu wér rek waaw di bëggee Babacar yu baax suñu waay la dëgg yàlla groupe baax moo ñu boole ah mais ba léegi tamit ni ñu jàppoon ba démb ba léegi noonu la ñu gën a jàppee ñu ngi koy ñu koy xaar dafa am lu mu tàmmal dafa am lu mu lu mu defaloon dañuy xaar mu tollandiko mu indiwaat ko am na solo waaw ne ko bala ngay booy ñaa bëgg Sa Thiès Reug bëgg nañ ko. waaw Tapha Tine Eumeu bëgg nañ ko. am na solo Gris Bordeaux Lac de Guiers bëgg nañ ko. am na solo Yékini Junior ko. laata ngi armée armée bu benn baraak. laat bu ar bu Bawol. amateur ah. bëgg ko. kontaan si